Vito Cocktail, une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 Oh, wallahi kontaan naa ci yéen de waaw def njarum soo mu sedd waaw jar mi de maa ngi naan maa ngi naan sawaxa te xanaa kañ lay ñëw jar maa ngi ñëw lu kañ lu kañ lu kañ ceebu jaga ceebu jaga muy yàqu leen di ndaw yi damay bàyyi ba midi bi ma taal ko waaw trois heures et demi laa bëgg tey naan ko sa papa nekku fi ñu ràcc waxtaan ah su la waaw ba saa sax ma la yow dem yow ba seen dis amu problème ba fu mu bëgg a sangu wala yooyu waaw. waaw man mii nga ñaan sangu après. tey dafa mel ni da ngaa a sangu nag dama bëgg hmm. nga sangu. ah vraiment moom mii moo a a sangu. bu cinq heures yi ñu ràcc fii. fii de bu ñu añee ba naan lu sedd ràcc. tabaski bi paas sangoon na. dégg di waaye ñëwaat. a na man man ay barki dem rek. ah yow yow moom garaaw. garaaw ay tamit sangu nag. waaw da sa papa di la dal sa papa di waxatu rek maa doo fi di waxatu. c'est vrai la ma wax daal laa bokkatee. di wax ko ture. ñoo ngi ko laajte ma ne ko du ngeen sax ñëwaat wala ma du ngeen fi ñëwaat. léegi léegi léegi yow maanaam kan ñaar. Ah. mooy xam nga aaw eh? mooy kii jëm mag. jox naa na <laughs> aaw ñaareel. yow mooy. dama koo deful dama koo deful laa la wax. ma sarax sax. yow yaa waxoon daa dim dee. daa dim dee kay. ah kooku ay waaw ne du ma dugg ñetti gone lañ xaw ma ay mbër lañ xaw ma kenn ki Assane la tudd kenn ki Tidiane kenn ki Babacar waaye waruma ba gi euh, benn bara ñëw géejawaay ñu may téye ma du ma dugg yaa ma soxla ah déedéet du noonu du noonu waruñu koo defee noonu ay gone lañ waaye nañ xam ne man mag laa waaw nañ xam ne man mag laa waay waay waay waay yow sëñ la bu ma wax loolu rus naa la rus naa la bu nekkoon bintu sa soxna du ko defee noonu jéeg sa doom xam na ma awaa baax na baax na comme noonu nga ko gisee baax na baax na àddina mu solo waaye yow mos naa koo gis ah naka laay ñëwee ñëwee ñëwee ah sëñ la bu gone mi nekk ci porte bi mu war a ñu ne ma du ma waay waay waaye lu gën a lu gën a ma may. papa yow yow du mooy jot. mu gën a rafet ma ne damaa demul. dew may wax war na wax ñu naan ma ay cité la cité la cité ba ci. waaw da ngay masta da ngaa tàng xol. ma ne dangaa xol. yow ku ne xam ne ni man ful la nga ma xamee. ak fayda. waaw moo tax eh, sama morom yi yabuñu ma ca jàkka ja. non dana nekk si papa nag itam da ngaa gaaw a mer rek papa doo dem. gis nga yow yow Fatou Mbegere maytu ma maytu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 Ah. xamal lu ma la waxul. waa papa nit dafa tàng. waaye sama yoon yoon newu ci daw ma yow ci départ pour kii. nga. ba nga dem joxoon nga ma départ maa bëgg dem marché. yoon baa ngi. du ñu ànd nga jox ma départ mënu ma demee dañuy def bopp dee. billahi loo booy dof doful la ma mere waa Cité ba yow moom laa sëñ bi bu xamuma sax sëñ bi bu war naa ñëw gune yi di ma téye ah sama yére bi nga xam ne kañ laa ko gëj a sañse sañse ba jeeg ah. nga xam ne mën na koy diggaale. papa néeg bu tàng bi ak li nga sol dafa tàng doo ko dem summi weer ko. waaw waaw waay waay summi waay yow fan lan la. papa dara ah ngay topp naan ma papa papa yow doo ma may. billahi boo def def la ma meree waa cité ga yow laa koy si. loo ma yërëme man mu ma yërëmul sama bopp loo ma yërëme. ah daa ma ventilateur waay dafa tàng. kii mu def fii. ah ben. du waa état bi. waaw. na nii laa seet seet si. kon yow naka tey tey ba tila. man ngay trop. fi mu fiy dugg papa tamit nag dama bëgg a yëg. ma jóg li nga naan ma dem maas fekke ñàkk a dem maas. papa yëguma ko de mu fi dugg. Fatou Diop man toog. papa déedéet yow lañ doon seet. Diop jugal génnal nday néeg bi looy xaar. papa ñu demaale ba defal ndox mu sedd nga ban ngay torop kon Fatou man leer na ma ni kii Fatou Diop danaa sañ ni sañ ta joxe boppam Fatou Diop sañ ta joxe boppam xanaa de waaw yow kii bu indi bu indi nga. non pale la wala lan. mais du paa fi ma fi ma effacé quoi. xaaral pe xaaral eh pe. ma xaaral xaaral si pe pe xaaral ma pe ma xaaral pe xaaral ma pe ah pe xaaral ma xaaral. il a expliqué xaaral xaaral pe pe xaaral ma expliqué ko benn affaire xaaral ma wala xaaral ma wala pe xaaral ma wala waaw xaaral ma wala xaaral ma wala pe. xam xam ngeen. daa expliqué daa expliqué. waay waxul waay waay waxal waay yàqul na sama. les gars yi dañ ne xaar xaar ma la gars yi dañ ne ñu wax dañuy ay sant doom ah xam expliqué ko père. doo ba kan jigéen doo caga sa xalaat ba tey jaay daal.